jaa jëfati mbokk yi way ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal dellu siwaat ak yéen jaaro nag euh, dafa am solo te saa su nit ki daf koy bëgg wut ngir mu doon lenn loo xam ni daanaka daf koy dimbali ci lenn jaaro nag dafa amit yoon woo xam ni daanaka noonu lañ koy wutee moo tax seen cabinet bi rahma fa seen ñëw ànd ak yéen ci numéro bu njëkk bi ñu jéem a seet yan yoon lañuy jaar ba mën ko fàggu fàggu goo xam ni yow sa ci sa bopp mën nga ko fàggul sa bopp wutal ko sa bopp defaral ko sa bopp la ca war yëpp dinañ ko def ay pàcc vidéo ngir mbokk yi ñuy dégg bu ci njëkk bi nag soo bëggee am jaaro boo xam ni daf lay dimbali musal la ci lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu seytaan tooke ak yeneen xeet yu mel ak lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu paaka wàllu pistolet wala yeneen yoo xam ni daanaka ay bon bon la nga bëgg cee mucc ñu wax la secret jaaro bi bi su njëkk bi dangay dem ci àll wu yaatu àll wu mel ni àllum kaañ soo fa demee nga topp tànk yi ba gis kàkkataar goo xam ni fa lay nen ay nenam soo gisee bërëb bi muy nenee nag su boobaa da ngay daal di wut benn matière aluminium bu woyof lool nga dem ba fa muy nenee nga daldi ko muur ci kawam daldi ko upp xàmme ko bàyyi fan nga jaaraat fa mbokki bi mooy ñaareel pàcc bi pàcc bi ci des dañ ci daal di ñëwaat wax leen naka lay demee ba nit ki mën koo am jaa ngeen jëf